baax si làmb mhm. ñi génn àddina ci mhm. waa circonstance yu métti yi waaw Brise de Mer nekk champion nekk mbër bu mag nekk koo xamante ne vraiment marqué na époque am. Mhm. Brise de Mer ku mënoon bëri la macha allah. Mhm. Mhm. kenn du fàtte combat bi mu amoon diggante ma Boy Niang. ak Boy Niang boo gisee lu tax combat bi àgg niveau bu mu àgg. c' est parce que la technicité de Brise de Mer. dëgg la mooy Boy Niang yegg na ko fu sori. mais lu mu teg mu teggi lu mu teg mu teg mu nekkoon combat déclassement. combat la boo xamante ni yaakaar naa ni fa la Boy Niang jaaree. takk takk donc Brise de Mer heure bii waroon na nekk ténor mm-hmm. mais yàlla mooy dogalee noonu ay mbiram ana mm-hmm. Pape Modou Lo ana Bruce Lee mm-hmm. tey ana Ousmane Toucouleur Ousmane Toucouleur ay naanaa ñu dul jeex yoo mm-hmm. xamante ne mm-hmm. vraiment seen carrière mm-hmm. tey àggul fi mu war a àgg tey Brise de maire yaakaar naa ni ci ñooñ la bokkoon waaye nag tey wax dëgg yàlla mu bëri bu yàggul dara mais aussi génn ci condition génn àdduna ci condition yoo xamante ne accident la saa arrive mais dañ koy ñaanal suñu borom yàlla xare ko àjjana Tigo itam nekkoon xale boobu dañu amoon ci moom yaakaar dëgg la nekkoon Tigo man Tigo man daf ma yéem ak résultat yi mu doon def ci làmb man daf ma jaaxaloon. Tigo dafa mënoon bëri trop trop trop. moom li la tardé woon kar am. Mhm. su ma jumul problème de facilité trouver ay combat la. Mhm. Tigo da doon galérer pour am ay combat mais bi Tigo bu amoon benn staff bi. Mhm. amoon tey ñu koy dimbali pour combat yi bari. yaakaar naa ni franchement. weesu woon na fii quoi parce que Tigo vraiment. Euh, boo gisee Modou Lo rek gis nga Tigo quoi. Mm-hmm. Tigo dafa xarañoon ci bëri. dafa xarañ lool mënoon bëri trop. ba pare itam nekkoon benn influenceur. Mm-hmm. de par sa religion. Mm-hmm. nekkoon koo xamante ne. chrétien la chrétien la mais itam boo gisoon da doon jël prise de parole des fois ci seen ay. Euh, événement yu chrétiens doon am doon ci am une bonne communication boo xamante franchement. amoon na benn vidéo bu viraloon trop. Hmm. mais ñëpp duñ ko duñ ko duñ ko fàtte quoi. Hmm. donc nekk na koo xamante ne franchement desem itam marqué nañu lool. donc vraiment làmb am na tiis mais di wax ni àdduna moo demee noonu. Hmm. di la ñaanal vraiment. Euh, suuf sedd suuf oyof ci seen kaw baaba amiin amiin na ko yàlla def yaakaar naa xam nga leen comme li